voilà chers internautes euh, chers spectateurs chers téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy seetaan Walfnet euh, Walfnet jaare ko ci sunu plateforme digital yëpp ñoo ngi fii ci cité kër góor gi xam ngeen ne waaye yeewi askan wi joxe woon nañ fi rendez-vous tey jii ngir mën a ñëw nee nañ tuddee mbir mi yeewi ji Ousmane Sonko dindi blocus bi nga xamante ni am na fi euh, boobaak léegi mu ngi bëgg mat ay fan yu bëree bëree bëree bëri bëri waaye blocus boobu bi ñëwee moom lañ fi nemmeeku mu gën a yokk sax bu neexee nga ne mën na dafa gën a yokk ndax un dispositif sécuritaire impressionnant moo fi am comme ni ñu ko fi daan gisee rek ren it euh, wala cette fois ci tey jii noonu lañ ko fi gisee muy euh, muy euh, gendarmerie muy aussi police boo demee ci côté bi nga xam ne moom féete ak VDN bi police gendarmerie nga fay fekk ñu. taxaw fa vraiment ak seen i euh, dispositif yu ama ama am solo boo ñëwee ci côté bi nga xamante ni moo féetee ak euh, l' autre côté c' à dire bi nekkee ak BRT bi foofu tamit noonu nga fay fekkee la police la présence de la police côté boo mënti duggee rek dafa di nga fa fekk de force de l'ordre ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy waa yeewi askan wi wax naa leen ko léegi joxe woon nañ fi rendez-vous ngir ñëw fi waaye boobu ak léegi gisaguñu kenn mën a dugg en tout cas accéder ci cité kër góor gi bu dul ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk euh, ay euh, nit ñoo xam ne rek ñu ngi dugg ak di euh, dem ak ñëw ci ay oto ak i moto depuis démb nag gis nañu benn nu ñu koy waxee di benn not benn arrêté boo xamante ni arrêté wa